ci gis moom mooy des attaques personnelles euh, boo xamante ne dafay jóge euh, quand même euh, ci candidat yi di jëm ci seen i ay moroomu candidat tout le temps moom la ñu nemmeeku. attaques yi ci Pastef lay jóge di jëm ci yeneen candidat yi Jomaay xam na ko da leen a mënulul dara nag wax ji moom nañ ko wax ba Bassirou Diomaye Faye président de la République mënulul dara waa Pastef xaw ma da leen a rus xaw ma da ragal xaw ma nu mu demee noonu parce que nag mënoo di aaye mbir yow Jean Baptiste moo bind arrêté n'est-ce nee na mayuñu kenn ku yor arme arme blanche. même arme yi sax yi nga xam ne day am autorisation autorisation yi aj nañ ko ba décembre Jean Jean moo ko wax mais waa Kër Jean lañ gis ñu yor ay jaasi waa Kër Jean lañ gis ñu yor ay fetal loolu moom xoolal du lu kenn di laam-laamee Jean gouvernement bi mu jiite première ministre ba ne ba caravanam lañ gis lu mat vingt cinq personnes ku ne nga yor jaasi ba ci garde corps bi ko gën a jege mooy moomoo yor jaasi di dàq ci nit bu ko jotee lu mu ko bëgg a def. bu ko joxutoon nag jaasi ji lan la ko bëgg def kenn du wax Jean anamu lan moo teree mu ne police yi ñoo ñu yor jaasi yëpp jàppal leen jàpp leen leen. wala ñu nangu sax même bu ñu amul nangu déet da ngay jàpp non non déedéet pour pour pour mën a expliquer même bu fekkee ne ne jàppoo leen mais ngeen nangu. boo nangoo ñu jëndaat. da jàpp teg ci bërëb ba élection yi ñu xam ne ne def nañ effort boo xam nga non loolu du effort loolu boo jàppee dañuy boo nangoo dañuy jëndiwaat da ngay jàpp dugal ci bërëb wan wan Abdou Nguer mee toog ne ko gis nga ñii ma jege gis nga ni ma leen def kon yow nag du la ko may parce que dañ ne bu la gaynde bu la bukki tooñee nga jéggi ko dem dóor bu la bu la jikki bukki tooñee nga jéggi ko dóor gaynde bukki day xam boppam n'est-ce pas day xam ne ci moom nga jëm mais tey jay bàyyi nañ leen ñu yori jaasi yow xalaat nga tey mhm. nañ waxante dëgg rek mhm. est-ce que man Jean Baptiste man ñeme naa dox guddi gàddu sama jaasi ñu ne nañ ñu jàpp ma loolu ban réew la maanaam loolu ban réew lay daal di nekk même bëccëg sax su ma jaadoon ci kànkaayeri bi jënd sama jaasi ngàmb ko dox ci mbedd mi est-ce que suñ ko tegee ci loi parce que dañ ne impersonnel léegi buñ ko ci tegee rek est-ce que man war nañ maa man jàpp te bàyyi ñoom moomoo ñee ñu taxawaal seeni jaasi en tant que garde corps nga yor jaasi fang ñu gis ku bokk ci caravane bi yor pistolet moom far moom nag daj dajal na sax far yor pistolet digg bëccëg loolu yëpp jomaay ko gën a gis moom moom moom jomaay gis na ko lu tax lu tax faju ko. la wax ne rek Diomaye gis na ko yow tamit. <laughs> ñeme nañoo dénk président de attention. mais mais est-ce que bu ko gisul tiit jot na. ku la wax ne yow ñu dénk la réew. agent renseignement yëpp di liggéey pour yow. yow nit yore fi jaasi. di reyante te yëgoo ko. loolu yow yaa ko ñemee wax. mais Diomaye ñemewu koo wax. xam nañu yor jaasi. vidéo Abbas Fall bi moom gis na ko. lépp la gis. moo tax ma ne da leen a mënulul dara. wala da leen a ragal wala da leen a ruus un de un yii moom benn am na ci da leen a ragal da leen a ruus wala très bien da leen a mënalul dara léegi nag bu fekkente ne moom mënalul dara waa passif léegi nag ñu yombalal ko ko président mënalul dara sa waa kër joxeel nu mu doon sax joxeel feu vert ñëpp ne leen nag lu waay xam moo ko ci kër comme sama waa kër mënul ma leen dara te nañ ma. lu waay xam defal. loolu kay yàlla nañ sinon sa waa kër rek. parce que <laughs> mënoo yor sa doom mu nekk ci koñ bi di tooñ. te buñ ko dàqee ba mu làqu ci yow nga fat ko bu yàggee waa koñ bi ci boppam ñooy ñëw dal sa kaw da ngay téye sa doom ji wala ñu ñëw dal sa kaw parce que nag ñii yëpp ay doomam lañ ñi gën a sës sañ ci moom waa Pastef la waa kër Jean la te Jean moo aaye jaas yi aaye fetal waa kër ma ko yor léegi Jean nag lan lay xaar man fi mu ne nii li may woo ma Jean lan lay xaar ci ñii. oui Jean. Jean Baptiste lu muy xaar ci ñii. parce que mooy ministre de l'intérieur moo bind arrêté bi kenn sant ko ko nag moom moo ko bindal boppam. na ci na ci dem ba jeex. <laughs> dinaa ñëwaat jaas yi bari na. dinaa ñëwaat léegi fetal yi bari na ci campagne bi gis nga nag balaa ñu cee jóg. daa dem ba ëppi loxo parce que ñëpp ndakaaru la ñuy daje si te woyu yi dañ ciy profité di sàcc lu ne ñu koy def Jean na teel rek réglé ñii. maanaam gën a yokk kaaraange c'est important fi nga fi nga daaneel. baax na guerre c'est important parce que campagne baa ngi jeex mën nañu wax ne ne peut que semaine bii ñu dëgg moo ci des donc euh, faw nag euh, ñu daal euh, gën a yokkat renforcer li ne di kaaraange gi ñoom ñëpp fii dañ fas yéene daje alors madame Diaw ci wàll woowu ñu ngi ciy waxtaan jëm ci ñeel campagne bi yéen a ngi ci biir ah. yéen itam yéen a ngi gis situation bi nga xamante ne mu ngi xew ci scène politique bi surtout bi ñu ngeen jot a gis ak li ngeen jot a doxal depuis euh, tout ce temps lan lañ ci mën a euh, jàpp. enfin peut-être que ngeen may aussi ma parce que occasion la ma masawu li xewoon Bakel fan yi passé ni ci ndox mi suñu ay moroom suñu nawle suñu famille suñu mbokk ñoo ki loru kon ñu ngi leen di masawu président Amadou Ly jaar fa durant son parcours durant sa campagne waaw moom tam masawu leen euh, jàppale def def aussi jàppandalaam pour bokk ñoom Euh, tiis bi du tiis sax li dal ci seen kaw nii mhm. di jàll aussi vraiment le ministre euh, Moustapha Ba suñu wóllëre suñu xarit la moom aussi di ñaan yàlla xare ko àjjana di wax massa aussi kii xale bi nga xam ne démb aussi moom la tiis bi dal ci kawam xale bi gaañu ci caravane président Ousmane Sonko. très bien ak ñi ci gaañ ñëpp ñoom tam ñu ngi leen di massa parce que après tout c'est le Sénégal. Mhm. te sont des Sénégalais. nii c'était pour un temps.